Déjà, avant de commencer, je démarre d'abord par le support musical, mooy la chanson, parce que vidéoclip, euh, na solo, trop support musical nekk à la hauteur. Parce que si, si, si musique vie, moi, emporter le réel, le créateur, moi, une inspiration débordante. Donc, Barna, nous rappeler aux artistes de faire des tubes, des titres béton, pour pouvoir euh, faciliter l'inspiration, la création à, aux créateurs, à, réalisateurs. Donc vidéo bi d'abord ch chanson bi laay njëkk féliciter Wally et l'artiste qui a fait le, le son c'est déjà magnifique c'est de tendance euh, musicalement structure morceau bi arrangement yi sonorité yi c'est c'est exceptionnel su ma ñëwee vidéo bi c'est le côté esthétique c'est super bien fait du début à la fin euh, c'est vrai que la plupart du temps le grand public booy def vidéo il faut les bluffer si benn affaire c'est vrai que dans, dans cette bluffer, vidéo c'est quoi bluffer c'est quoi bluffer <laughs> il faut les emporter parce qu'en fait la vidéo sert à ça ça sert à vendre ce produit c'est-à-dire cette chanson pour que mu apporter à l'artiste une carrière encore beaucoup plus haut donc li ci gën li ma bluffer bi mooy chaque vidéo war na am quelque chose boo xamante ni dafay emporter le grand public ñu accroché aussi vidéo bi parce que vidéo chanson mën na mën na moins bien à partir d'une réalisation d'une vidéo que les gens l'apprécient parce que uniquement l'image les a emportés le réel les a bluffés donc si vidéo bi tout au début C'était tout simple et très courageux par rapport au tournage et au montage. Le gars s'est fixé sur euh, le personnage de Wally et la fille euh, qui joue euh, l'actrice. C'était propre dans une maison. À un moment, on me rejoint ce que la chanson du Natural Love. Donc, ils sont partis dans un décor naturel euh, def la scène. Et là, à la fin, il a bluffé avec euh, ben incluse fond vert et il a découpé et mis et mettre Wally si ben euh, euh, ben euh, animaux buy naaw ça c'est c'est extraordinaire c'est ça la magie c'est ça la créativité il faut toujours en créant une vid euh, une vidéoclip chercher à à non seulement séduire le public déjà acquis par l'artiste mais il faut aussi à chaque vidéo war nga ko indil ay nit yu bees yu ko gën a fan à partir de cette image parce que quoi qu'on puisse dire la différence se trouve sur ce petit carré qui est l'image c'est ça qui fait de sorte que artiste bi jógee dimension bi mu nekkoon si koñam kenn du ko faale à partir des vidéos et des images que nous donnons mu nekk quelqu'un d'autre bam su rombee ñu naan ko signal ma orthographe defal ma ni donc c'est l'image là qu'on fabrique mooy lépp quoi ok tey yaakaar naa ni tu es un grand réalisateur ça aperçu ci vidéo bi gis nañ ko tey ban diagnostic nga may indi par rapport au première vidéo clip yi nga xamante ni dañ ko doon gis fii Sénégal li ci ëpp kër bu rafet lañ doon wut piscine rangale téeméeri jigéen ku ci nekk nga xees taxaw artiste bi nekk ci diggante bi tey ñu toll benn jamono boo xamante ni on a vu benn vidéo boo xamante ni deux personnes la avec un aspect naturel lan moo expliquer changement boobu. non du du changement. Hmm. du changement c'est dans la continuité. Hmm. mais aussi boo xoolee. Euh, chaque moment chaque période dans la créativité artistique day am lu nekk tendance tey moment boobu ngay wax ni su les vidéos il y avait des filles jusqu'à présent la femme elle est utilisée comme comme ça jusqu'à ouais. présent je m'excuse du terme lu lu lu war mais yàlla moo def si soxna yi ñu nekk loo xamante ni dañuy jaay donc tu vas nga dem États-Unis nga ñëw Afrique nga dem dans si arabe yi naturellement jigéen dañ koy jël di ko exposer sur des images artistiques pour pouvoir vendre okay. maintenant euh, peut-être processus yi ak accessoire matériels yi ak développement technologie mun na permettre que ñi nga xam ne ñooy nekk ci fabrique dimanche bi di am beaucoup plus d'inspiration parce que loo gis dafa am fu mu yem am ku ko jël am ku ko continuer donc foofu mu yemoon boo xoolee de at yi nekkoon si ginnaaw nekkul woon dañ doon utiliser jigéen mais jusqu'à présent la tendance rest parce que même boo demee aux États-Unis wala nga dem si dëkk Afrique nga xam ni ça marche plus seen vidéoclip moo gën cher seen vidéoclip moo gën a moo gën a accessible partout dans le monde parce que nous au Sénégal on a des limites tey aujourd'hui même su fekkee da nga jël jigéen tu es mu sol yére bu jot wala bu dee day fecc mu sol ba wala bu dee sax dafay un peu provocatrice dafay du du exagéré comme la fille qu'on voit si vidéo bi c'est en short c'est ak euh, benn oh je sais pas donc naturellement tout ce qui suit c'est la nature qui le fait ok c'est par rapport à la chanson thématique bi le son et tout qui mooy influencer le créateur mais tey su laajoon waa li def un autre titre très rythmé avec une nouvelle danse ou dafa bëgg a parce que chaque vidéo a sa cible. ok chaque vidéo a sa cible. je pense que tey su fekkee da nga def benn morceau bien ambiance jëm si vacances nga bëgg influencer les plages les boîtes de nuit euh, mbedd mi. tu es obligé de mettre de la danse en avant, de mettre une ambiance, de mettre quelque chose de rythmique pour, pouvoir influencer le grand public ñu suivre la à peu près. d'accord mu doonoon analyse bi nga xamante ni def nañ ko ci vidéo bi di Naturel Love Wally Ballago Seck bu ko génne en moins de trois semaines une vidéo qui a totalisé plus de deux millions de vues donc nous lui disons bon courage et félicitations Papis léegi nag dañuy dugg ci cappaandaw.